Aliou Ndiaye nekk euh, Touba Kër a Awa la waaw di liggéeyal fii sëñ Touba bu baax a baax a baax a baax ci kafe gi waaw. waaw da leen gis ngeen dajaloo fii quoi te xamuñu maanaam li ngeen def nii lan ngeen ci jublu waaw ñu leen laaj initiative bi lan la. waaw ñun initiative bi ñu ci am moom mooy dimbalante sunu biir rek dimbalante suñu biir am na ay mbokki taaliba yoo xam ni maanaam seen loxo dafa jotul seen ginnaaw waaw te dañuy itteewoo ay ndogu waaw ñun moom bi. ak ci maire yi jaay ñu dara daal dërëm ak ñaar dërëm ak ñett dërëm boole ci ñun lu ñu am ñu koy génne pour di defar ay café jënd ay mburu lépp pour dimbali jaam ñi waaw ku mënta am ndogu rek incha allah boo dikkee fii daal ci kàttanu yàlla Touba Kër Cheikh ci kaw tale bi di nga ndogu moom incha allah. su ma a déggee daal def te yàlla tax la daal. maanaam ku ne daal da ngay génne li nga am rek ngeen boole defar rek jox jaamu yàlla. waaw waaw noonu noonu moom ñun moom xeebuñu dara def te yàlla tax la dërëm ak ñaar ak ñett dërëm ku amul sax boo amee yéen ñëw toog sax day mel ni yow mus ngaa def nga. xeeboo leen dara daal. Ah, déedéet xeebuñu dara xeebuñu dara xeebuñu dara même ñëw ñëw du ndogu sax xeebuñu ko buñ sañoon ñëpp dañuy ñëw sax waaw bu ñu indi dara ñu ñëw ñu am suñuy teraanga di leen teral ngir jëmi koor gi waaw jëmi sëñ ak jëmi sëñ Touba. loolu rafet na loolu rafet na. waaw maaleykum salaam jërëjëf Serigne Touba wa ma tawfiqa illa billah waaw maa lay fay. mbokk mi ñu ngi lay laaj sa tur. waaw man maa ngi Nabi Kara nabi karamu mooy lan. nabi mooy yeneen xeer xeer lan. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw kon jëwrin Jaw ñun dañu gis ngeen toog fii nekk ci café yi nii ñu bëgg a xam maanaam café yi lu ko wundu ak nan ngeen di def ba defar lii ba xam da ngeen am fond di ko chaque année di defar café yi wala da ngeen koy laaj wala daal. waaw café yi moom dañoo ñëw kër Cheikh xam nga yàlla dogal ñu ñëw fi di fi liggéeyee. fekk fi suñuy mag xamoo nga ku ci mel ni sàmbalaay Laye xam nga ay chinois dafa Diop xam nga ay saadi bu zaal xam nga ak ñiñ fi fekk ñëpp daal ñu ñëw ñoom ñu yaatal ñu idée boobu sax grand yi ñoo ko am na ñu booy comme ni ngeen di toogee fii moom mënoon ngeen di génne ñu ne ñu ciy jàpp di génne suñuy xéewal ñuy organiser ay ndogu weeru koor bu jot ñuy faral di ko def koor gi xam nga ak safar gi ba yaakaar naa ren ji mooy deuxième édition ñu koy def waaw liñ koy def loo nag am na ay fonds yoo xamante ne dinañ koy def ay bëccëg boo xamante ni chaque jour kenn ku ci ne ci ñun ñii joxe deux cent ñii joxe cent franc ñii joxe téeméer yooyu daal la ñuy récolté wu xam nga chaque année bu ñëwee ak xam nga ñi nga xamante nii ñu ngi ciy jàpp di génne seen xéewal daal ci koñ bi yëpp loolu daal la ñuy récolté xam nga di ci togg ay ndogu waa di ci roy maam Cheikh Ibrahima Fall na mu ko daan defee rek comme que nee nañ joxe moo gën julli waaw. initiative boobu daal lañ ci am daal ndogu pour tous wax dëgg yàlla da ci jox ñëpp vraiment. waaw loolu moom lu rafet la moom def te yàlla tax daal su ma la déggee dafa mel ni daal def te yàlla tax la boole seen doole ñëw defar ay kafe joxe ndogu wax dëgg yàlla loolu moom lu baax la waaw loolu moom ay xéewal kese ci ne waaw ñu leen di laaj tamit bi ngeen ko dalee def ba léegi maa lu ngeen ci gis waaw. waaw ah, vraiment maanaam bi ñu ko dalee def ba tey. maanaam gis nañ ci ay xéewal gu baax a baax a baax a baax ndax maanaam dem nañoo dema dema dem ba tey ñi nga xamante nii suñu grand yi nga xamante ni ñoo nekk si diaspora bi xam nga dañuy génn seeni xéewal xam nga du si jàpp waaw ku ci mel ni Aline ñoom Aline Ndiaye xam nga ay daam xam nga ay ñoom Mbaye Touré xam nga mu Ndiaye grand yëpp dañuy jàpp ci affaire yi nice vraiment wax dëgg yàlla dañuy jël seen xéewal duñu ko yónnee parce que Serigne xam nga ak maire yi nga xamante ne ñooy jaay mango fii nii ñëpp ak borom kenkaayéer yeeg ñi nek fi ñep vraiment dañuy gënd ci japp ndax wax dëgg yàlla initiative biñ koy def biñu ñëk njëkk a kël gi manam dara du ci nek te wax dëgg yaal dëgg mo neex yaal sa ñu xëyee dinañ jënd kilo café jënd sucre ci ci dem beurre bi ak mburu mi xam nga insa saa jënd chocolat xam nga ak xam nga grand bi nga xamanteni mom lañ nekkal muy grand sadi bu nga xamanteni mom da ci japp vraiment chaque jour safar bu ñëwee yeen saa yi day gën ay xéewalam di ko si def mook ay zal xam nga ak xam nga papa John bi nga xam ne moo fi atelier bi daal dañ ciy jàpp kenn ku ci nekk maanaam soo bëggee ñi nga xamante ni sax dëkkuñu ci koñ bi dañ fiy ñëw yenn saa bu ñëwee fekk ñuy maanaam ñoo ñooñu ñemeloo daal ndax ñooy ñëw génn seen xéwal maanaam di ko ci def ba tax na tey jii nii maanaam mbir mi sori na soriwaay boo xamante ni daal wax dëgg yàlla mbégte lañ ciy àndal daal ak bànneex barke Serigne Touba. bon deful lu dul rafet parce que lii royukaay la koo gis ku ne da nga ko war a roy mooy def lu te wax dëgg yàlla ñoo ngi ci depuis ñu ko commencé ba léegi nii taayewuñ ci benn yoon te fas yéene wuñ cee taay parce que ku gis maam Serigne Fall rek gis Cheikh Béthio Thioune mi fi jóge barki dee moo Ndiaye doo ci joxe ñam rawatina ci weeru sell wi nga xamee ni suñu borom dañu ko tànnal muy ñëw leen ma jéggal leen seen i bàkkaar raxas leen ba ngeen set wicc bépp bàkkaar bu jaamu yàlla amoon rek suñu borom fankal la raxasal la lépp ba mu set na rawatina nga boole di woor ba pare di jël sa ñax. di togg ay ndogu di ko joxaat jaamu yàlla yi di ko bokkaat ak ñoom muy lu la neex ñuy toog di ndogu nga leen di xool geste boobu di la neex yow kon loolu rek sant la rek xam nga ak gaa yi ko àndandoo fii yëpp bokk di ko def xam ay Papa John ay Ahmed Touré ay Sinu ay Daadi njaay Xaadim Saadi bu ba xam nga ay ñoom Ori njaay ñu gën koo xam ci Xaadim maire yi ne fii di jaay mango yi ñëpp dañuy génne seen wërsëg borom kenkaayir yi atelier mécanicien yi. borom oto yi ñëpp dañuy ñëw génn seen wërsëg di ñu ko jox xam nga waaw ñuy ñëw defar affaire bi xam nga xaas bi day bëri lépp di neex xam waaw loolu daal vraiment moo sant la rek quoi lépp sant rek lépp dañ koy jël def ko euh, cant rek waaw di ci kontaan nag di ci am mbégte moo xam ne nii mënuñu laa wax sax nu mu toll waaw suñu sañoon lii du jeex day am continuer ñu koy def gaay di xéewlu waaw mais nag daal lépp daal comme li ma wax rek sant rek waaw sant rek vraiment lu neex la moom wax dëgg yàlla waaw sant daal sant. xam nga njëriñ la quoi ndax ni may waxee pare gu ma Tafa Diop ngi jóge fële ak i xéwalam ñoo indi ko joxe ko daal vraiment lu am solo la ak grand zoo tamit da ciy jàpp bu baax a baax Mansour Tine vraiment dëgg yàlla moom gis nañ suñu bopp bu baax a baax a maanaam yéen ndogu yi su ngeen ko defaree ba pare maanaam ñan ñoo ëpp ci ñu koy xéwloo fii ndogu yi bu ko defaree ba parce que ndog yi boo dee xool buñ ko buñ ko dee def laataa ñoo pare parce que bari na fi ñoo xam dañ fiy ñëw di jàng se alxuraan dëkkuñu fi taalibe yi Saalum la ñuy jugee ñii Gambie ñii Fatick fu ne la ñuy jugee ci réew mi di fi ñëw di fi jàng see te ku ne xam na ni daara yi léegi maanaam xam nga considération bi leen war a jox joxuñu leen ko maanaam seen sëriñ ñi xamal seen i moyens demewu fa noonu pour ñu leen di mën di jox ndog ñoom ñëpp ba tax na taalibe yi ñoom boo dee xool ñoom ñoo fi ëpp bu ñëwee fii ndog yi ñoom dañ koy partager ak ñenn nit ñoo xam dañuy liggéey dañuy dañuy naajee wàcc balaa ñoo wàcc souvent dog da leen fekk ci yoon bi fii la ñuy dogoo ak ñi nga xamante ne nii ay dëkkandoo lañ boo de xool kenn seekeer du ci kafe ñoom ñëpp kafe gi ñuy ndogoo seen i kër fii lañ koy jëlee waaw vraiment mu nekk loo xamante ni initiative bu rafet la daal wax dëgg yàlla maanaam gis nañ ci yokkute bu baax a baax baax na lépp lu ñu doon def daaw rek ren def nañ lu ko raw ndax boo xoolee li ñu daan segg daaw li ñuy segg ren moo ko ëpp Wow, vraiment wax dëgg yàlla te bëgg nañ nag laylatul xadri bi gaa yëpp génn ñu ciy lancé appel laylatul xadri bi gaa yëpp génn jàpp ci waaw parce que boo boo xoolee maanaam ñun li ñuy jariñoo lépp café gi saa ñu ko seggee bu paree kër yi nga xam ne ñoo ñu wër yëpp kenn ku ci nekk da ngay indi sa cafetière ñi indi sa mbuus ñi indi am na ñoo xam sax dañuy dëkk fu sori mais maanaam dañuy préféré maanaam ñoo fii ndogu si fi ndax maanaam li tax ñu koy def mooy maanaam dañuy gis ni fii mooy ëpp barkeel ndax fii dërëmu daal di na ci dem xam nga juróomu sàmbalaay fukki dërëmu ame ture moom la ñuy boole te ko xam na ni ñëpp xam nañ ni mbooloo mooy doole daal waaw maanaam li dafa nekk lu am solo solo solo solo loo xamante ne boo xoolee ñun maanaam ñu ngi ko rey ci maanaam ci mbirum Baye Fall la daal ndax tey jii boo demee Touba ndog ya Baye Fall yi ngay jël di yóbbu waaw fépp foo dem daal ba pare social la solidarité ndax bu ñu demee dema deman ba ay joueurs yi nga xam ne ku mel ne ay christian Ronaldo di jël xaalis bu bari di ko jox waa Palestine ci weeru koor bi ngir social nga xam ne sagam ñoom ñoo mën a def ñooñ te bokkuñu diine masama ak ñun ñi nga xam ne suñu diine dañ ko gën a recommandé gën koo soxla daal vraiment waaw appel bi may def mooy maanaam ñu gën a jàppaat ci social bi maanaam dañoo nekk ci pays boo xam dañoo soxla maanaam li nga xamante ni mooy solidarité maanaam mooy ndimbalante social bi bëgg nañ tamit xam nga ñu ci mel ne ci autorité dëkk bi waaw ñu sant tamit Pa Modou Gueye bu baax na vraiment moom day génn di jàpp ci bagage bu baax a baax bëgg nañ autorité dëkk bi ñu génn ñu ngi xool ñi nga xamante ne dañuy organiser ay ndogu ñuy ñëw di ci jàpp daal ndax gars yi dinañ soxla lu mel ni ay suukar a café tey jii maanaam ku ci mel ni maire dëkk bi bu doon génn tey di subventionné xool maanaam ci nu café ñi nga xamante ne dañuy joxe ndogu ñu leen jox ay saaku suukar xam nga ak ay kaas AZT xam nga ak ay bon mburu ak ay café Touba maanaam dina doon li nga xamante ne day gën a jàppale bi daal ndax maanaam liggéey bi ñun xaaruñu ci kenn sax amaana def te yàlla tax la lépp lu ci waay def waaw yow tamit ñu lay jaajëfal bu baax a baax ndax tamit chaque instant yaa ngi ciy jàpp wax dëgg yàlla dëgg moo neex yàlla chaque jour bu ñuy café fii boo ñu fekkee di nga génn si xéwal jox ñi wala yenn saa yi nga ne ma amet boo yégee si jakarta sax nga ne am ñëw wala nga ne sama suukar dina ñëw waaw kàddu gu mujj gi mooy di santaat ñëpp waaw di sant grand yi nekkal fii ku ci mel ni sàmbalaay xam nga suñu jóorin moom mooy njiit gi waaw ndax mooy suñu mag moo ñu yaatal ku ci mel ni Aline Ndiaye xam nga ñu gën koo xam ci sunu xam nga saadi bu baax xam nga Zal papa dafa Diop xam ma ak ñi nekk fii ñëpp ay ñoom xaadim xam nga ñi nga xamante ni chaque jour ñooy raxas si way génne ci nii xam nga ak gaa yëpp daal ñu ngi ziar ñëpp xam nga di wax daal yàlla na jàmm yàgg quoi waaw di waaw di santaat waa Tip Info bu baax a baax a baax a baax waaw liggéey bi rafet na trop di leen wax ni nag moom tout début est difficile di leen wax ngeen gën a jàpp gën a góorgóorlu xam ne moom wax dëgg yàlla yàgg bawul dara quoi incha allah di ngeen ñaana yàlla leen suñu borom defal ngeen dem a dem ba Tip Info Don télé bi gëna mag ci Sénégal wala ci aduna ñëpp diko sétane Amin amin amin. amin amiin xanaa gisuloo suñuy rakk ak koor deket di lenyan ngem sun ci bekon da far ñu ngeenel ci asaman di jegal ñu sun ñi bakkan ma gëndaw ba ci defal bul Sénégal la ci ak ca ndax dafa yaram bu ba dénk la yaay mu sama ma ci ngir ma am barke dar si you I will nothing protect me let me do my thing you are the frost you are the love Got you out of found, you out of love. Protecting my family, save my family. Protect my family, save my family. Hallelujah. Oh no, they could deal like Yamu. Dag de aljan dëkk bi la jaamu ndax tàbbi fi daw si wone la wàllu dimbali ndax sa yar mën na yaatu yaa rabbi yàlla nangu ñaan yaa rabbi dëkk la jaamu ndax nga may aljan